ar yoo xam ne yeneen ne ci tool yi yeneen ci atelier yi yeneen ne ci bitik yi yeneen ay defar li nga xam ne moom la ñuy dundee bés bu jot yàlla dafa def nag année bii ñu ne ci at moo xam ne yombul ndaxte ku xam àdduna bi ni muy doxee xam ne ci atum inflation maanaam ñaari at yi li ko gën a wane feddali ko bokk na ci yokkute bi am ci njëg yi daar yoo xam ne yeneen ne ci tool yi yeneen ne ci atelier yi yéen a ci bitik yi yéen ay defar li nga xam ne moom la ñuy dundee bés bu jot yàlla dafa def nag année bii ñu ne ci at moo xam ne yombul ndaxte ku xam àdduna bi ni muy doxee xam ne ci atum inflation maanaam ñaari at yi li ko gën a wane feddali ko bokk na ci yokkute bi am ci njëg yi dëgg la te lii nag ñuy waxtaanee tey muy bay dundee président Momar Ndao wax na ko léegi dama xamul ndax dañuy wax. beneen baat waaye bay dunde ndaxte ci mbay la tàmbalee jëm ci leneen yëpp li ñuy sol li ñuy fi ñuy fanaan lal yeeg moo xam fauteuil yi ñuy utiliser meuble yeeg lépp dafa doon li nga xam ne bokk na ci solution maanaam euh, li nga xam ne moom mooy li ñu yaakaar ngir mu mën a dog jafe-jafe yooyu nga xamante ne nit ñi dinañ jànkoon jànkonteeg moom ma bëggoon leen ci jox rek benn misaal benn exemple xam ngeen ne at mii te léegi at bu jot mu am ndaxte bu nawet jotee rek njëg yi yokku ni jigéen ñi naan soble amul pombiteer amul dafa sob dafa cher ñu naan jën amul ci marché yi ñi naan ndawal dafa cher ak yu demee yooyu yëpp loolu li koy waral mooy ñun bu ñuy bay légum lu mel ni soble wala lu ni pombiteer ku mel ni sëñ Jiili sàmb mi fi ne mën na ko wax dafa àndut ak taw ndaxte buy taw mën nga bay ay pepp moo xam mboq la moo xam euh, dugub la xam sorgo la moo xam basi la leneen ak leneen waaye toolu dër li nga xam ne mooy tax nga mën a am kaani mën a am pombiteer mën a am li nga xam ne mooy soble mënoo ko def ci nawet bu boobaa nag li ñu soxla dañ koy jéegaani bitim réew looloo waral weeru janvier bu jotee li ñuy soxla ci soble ak pombiteer am nañ ko Sénégal dangay jël saaku soble boo xam ne weeru janvier boo amee junni ak ñaar téeméer wala junni ak ñetti téeméer maanaam 6000 wala 6500 nga am ko bu weeru ut jotee nawet bu tàmbalee loolu dootoo ko mën a am ndaxte bi ci gën a yomb Maroc lay jóge bu jógee Maroc dëkk ba muy jógee 9000 wala 10000 la ñuy jaayee saaku boobu mu jaar ci port bi wala jaar ci yoon bi egg si Dakar douane baag nangam nangam mu mujj 13000 wala 14000 maanaam ñetti junni wala ñetti junni yu manqué ñaar téeméer loolu mën nañ ko wax ci yeneen ak yeneen donc ñun li nga xam ne mooy suñu avantage. mooy ñu mën a bay at mi yëpp mën na am ñu am ay serre wala am ay magasin de stockage ba nga xam ne njëgu soble bi ak njëgu pombiteer bi du du sonnal borom kër yi ngeen doon donc loolu moo tax consommer local ci misaal boobu rek moo tax président Macky Sall jox ko fullaal ko di ci def moyens yu bëri te ñu yaakaar ne moyen yooyu dina gën a bëri ndaxte li ñuy jàngal ci koom-koom looy gën a jëfandikoo li nga xam ne yaa koy bayal sa bopp di ko defaral sa bopp di gën a moom sa bopp ci économie te moom sa bopp la ñu wax nag ndaxte moom sa mooy moom sa bopp ci koom-koom moom sa bopp ci koom-koom moo jiitu ci loolu yëpp. mu ko mu doonoon Abdou Karim Fofana jëwriñ bi ñu dénk nag wàllu jënd ak jaay ci senegal ak noonu nga xamante ne nag moo jëm ci yenn entreprise yu ndaw fii ci Sénégal ñu daal di nag wax ah, ci ab vidéo boo xamante ne fan yëpp ñu ngi koy gis ci sociaux yi muy ay bisu Dakar dem dikk ñu daal di daw nag ci dëkk tugal yi loole nag mu doon lu yéeme mu jaaxal ñu bëri. ba tax na nag laaj yu bari daal di si jib moom bun xatab silla ah, daal dina si ñëwaat leeral nee na nag li ni mel ah, jàpp ne nii ab liggéey la bi nga xamante ni daal nañ koy sumb ngir rek mën a andi ah, bus yooyu jëlee ko foofee ji tugal andi ko Sénégal ndax sénégalais yi bëri rawatina fii ci ndakaaru ñu ngi sonn lool ci ari di xaar bis yoo xamante ni léeg-léeg da leen di andil ay jafe-jafe si seen wàllu dem ak dikk ab Ousmane Bun Xatab Silla la ñuy teewlu ci extrait bi lee nga xam ne ni mooy président Macky Sall ak Adama Barrow. Euh, ah ak sunu premier ministre. waaw Ba ak seen vice président. ak ñeneen ministre yi nga xam ne ni mooy sunu ministre d' ak ministre yeneen ak yeneen. mais di nuyu d' abord population yi nga xam ne ni mooy population Sénégal ak population Gambie. donc tey dañ fi teewu pour nga xam ne ni benn forum lu ñuy nee forum économique entre Gambie ak Sénégal loolu nag. lu ko war mooy initiative ñaari état yi donc euh, suñu xoolee Gambie ak Sénégal lu leen euh, vraiment lu am importance ci ñun tey mooy économie di nan lay gën a doxee ginnaaw loolu euh, man ak sama xarit ku nga xam ne ni mooy jiite société séné gambienne de transport ak société Dakar Dem Dikk ginnaaw bu président ak ministre yi jox ñu ndigal nangeen jàpp mbokk liggéey pour jàppale askan wi ñu toog waxtaan xam na ni pour ñu jàppale askan wi il faut que ñu yokk yu nga xam ne ni mooy trajet diggante Gambie ak Sénégal bu ñu ko waxtaanee ba juboo loolu moo tax ñu ñëw tey di signé di firndeel ni incha allah dinañu yokk yu nga xam ne ni bus yi ñu nga xam ne ni ñuy dem di dikk Dakar ak gambi pour jàppale toujours askan wi maa ngi siy rafetlu bu baax a baax di rafetlu di nuyu tamit sama collègue ku nga xam ne ni vraiment mooy société gambienne de transport. waaw maa ngi si alhamdulilah rabbil alamin xam nañu ne askan wi Sénégal sonn nañu lool si dakaar si Sénégal pour ñàkk bus mais ginnaaw loolu xam ngeen ni amoon nañu ay jafe-jafe ay événement yu vraiment yu metti ñu nga xam ne ni am nañu suñuy bus ñu làkk li ñu toj. Euh, bu ñu gisee loolu ñuy fàttali nekk askan wi lii nii seen moomeel la ñoom ñoo ko moom. ngook dinañ ci ñëwaat ngi gën ko leeral ci xibaar boobee soxal euh, société nationale bi di Dakar dem dikk xibaaru bés bi nag daf ñu yóbbu ci dëkk bu sell bi di tuuba ak xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké noonu nag yoru kàddoom di Serigne Bassirou Mbacké sëriñ Serigne Abdoul Khadr Mbacké daal ne ñawaat nag ci ay wax yoo xamante ne jëm na ci élection présidentielle 2024 nee na nag jamono ji ni ñu jàpp ni scrutin bi dina am foofee ci dëkk bu sell ba waaye mooy doon bu mujjantal ba ndax nag jamono ji nee dëkk bu sell bi am na lu ñu fa bëgg nag daal di indi ci lu yees noonu nag nañ teewlu kàddu yi Serigne Bassirou Abdou Khadrou Mbacké ba wax ci élection yi ba waxoon ci élection yi wax ne nit ñi dañ koo dégg ne nit ñi dañ koo dégg ne sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi sëriñ waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi ba ma ñibbisee itam ba ma ñibbisee itam sëñ bi jox ma ci ndigal señ bi jox ma ci ndigal ma àndoon ko jarbaatam di secrétaire am xaadim di sëñ xaadim ma àndoon ko ak jarbaatam di secrétaire am di señ xaadim Diop ak ñam ko seqaloon ak ñoom ko seqaloon ñoom ñoo ca liggéey ñoom ñoo ca liggéey ba bindoon ko ci kayit ba bindoon ko ci aw kayit niñ ko xalaate niñ ko xalaate jébbal ko sëñ bi jébbal ko sëñ bi wax leen ñu indil ma ko sëñ bi wax leen na ko nañ ko yët sëñ Basiiru ba ma ko ko yutee ba ma ko ko yutee mu ne ma yët ko njiitu réew mi mu ne ma yët ko njiitul réew mi nii laa ko xalaate nii laa ma jógee fii dem ba jox ko ko ma jógee fii dem ba jox ko ko mu xool ko mu xool ko yónnee ko ministre de l'intérieur yónnee ko ministre de l'intérieur ba mu ko ko joxee nag ba mu ko ko joxee nag ñoom bañ ko saytoo ñoom ba mu saytoo ñu xool xam ne xaj xat na ñu xool xam ne xat na xam ne xaj wala mën naa indi jafe jafe-jafe ndax dañuy ndax dañoo wax ne kuy wate ku ne sa carte d'identité sa carte war a watee dañ ko caa def fa war a watee dañ ko caa def bi sëñ bi xamee loolu nag bi sëñ bi na mu ne kon na at moom at moom nañ ko bàyyi na meloon nañ ko bàyyi dara loo dana gàllankoor nit ñi ndax bëggut dara luy gàllankoor nit ñi di jóge ci moom di jóge ci moom kon nañ ko bàyyi ni meloon kon nañ ko bàyyi ni meloon bu demee ba élection yu weesu bu mu ngoog mu doonoon kàddu yi Serigne Bassirou eh, Abdoul Khadre Mbacké eh, noonu nag mu doon jottali kàddu yi eh, Serigne Mountakha Mbacké ci élection présidentielle yu nar am ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent nee na nag wax na ni jamono ji tembe élection yi dina fa am waaye tamit woti ah, dina fa am ginnaaw si nag bu weesoo ñu daal di jàll ci ah, leneen ci xibaaru ah, xaaju guddi gi ci ba tey li gën a fës ci xibaaru bés bi andoona nag jàppale ni ca ku ñu duppee Ibrahima Tall moom nag eh, dañ ko daal di agressé ci loole nag am na fu mu doon liggéeyee ne na nag jàpp ni dañ ko ko def loole nag ànd na ci ay leral ñu teewlu ko ci l'image foofu ca Thiès. Ibrahima Tall nekk responsable des jeunes section Thiès Nord léegi nag bi ñu tolloo ci ay renouvellement ñu monté instance yi defaroon nañ bureau section ba pare après ñu defar bureau fédération mu am ay coow ñu nekk noonu di ci dem fur mesure parti bi imposé nañ defar instance interne yi léegi bi nga ko waxee ñu ne a comme parti bi la ñuy il faut ñu jàppale ko ci loolu parce que nag aussi parti bi actuellement comme Karim daa bëgg a ñëw leen rek moo ñu war mooy topp ko directive yooyu nga xam ne moom la wax ko renouvellement yi bu dikkee nag après li ci des moo koy réglé léegi man commissaire bi woo na ma personnellement waxtaan ak man wax ma li nga xam moo koy yëkkati léegi ma ni ko man damay âgé sax ndax parce que man am ëppal naa trente cinq damay dem mais incha allah dinaa xool ñi nga xamante ne ñoom laa nekkoon jiite leen ñu nekk usitel bi dèjà waxtaan ak ñoom xool nañ lan man def ba renouveler usitel bi képp koo xamante ne dèjà bëgg naa nekk responsable des jeunes usitel dèjà bu boobaa di nga mën a postulé wu léegi am benn mais Thiès na dafa am benn xew-xew bu fi parce que boo gisee le secrétaire général ak le responsable bi nga xam mooy président bi Euh, euh, dañu am ay ay divergence seen diggante parce que divergence bi yàgg na mais nag teewul ñun bi ñu demee di euh, ci section bi di ko monté ñun ñoo amoon majorité waaw dañ leen woo boole leen jàppoon naa ni non man dama woon pour nekk candidat dama dama woon pour nekk candidat mais candidat bi déjà renouveler bureau CLF bi ak bureau CLC bokkul bokkul ndax bureau CLC bi ci commune yi lañ koy lañ koy renouveler yaakaar naa vidéo yooyu ñu ngi jàll yaakaar naa Thiès Prestige jour boobu ñëw na fi ñu renouveler ko teg le Moustapha Diawo le jeune bu dëkk Kër moom moo nekk le secrétaire général Isitel Thiès Nord. mu ngoog ci xibaaru yoon ak yoonal bu Sénégal jàppale ni nag. waa police nationale daal dinañ def liggéey bu mucc ayib ci noonu rek ngir gën a yokk kaaraange yi waaye itam di aar askan wi lu jëm nag si seen wàllu euh, liggéey noonu nag ci Sénégal woon ngal këpp euh, gis nañ nag lu toll di juróomi téeméer ci ay takk der di ay policier nag daal nañ leen wàccee ci terrain bi leen leen nag nee ni ñu nekk ay civil ngir nag mën a amal liggéey ci wàllu guddi ci ay zone yi nga xamante euh, jàpp na ay def ko tu dañ fay féetee noonu nag ci guddi alarba ji ñu génn jàpp alxamis ji ñu génn nekk yi tamit eh, noone eh, bu eh, ñaar fukki waxtu jotee ci guddi ba tegal noone nag juróomi waxtu ci fajar lañ doon amal liggéey bi noone nag ci grand ménage bi nga xamante ne dañ ko doon def ci wàllu sécurité publique wax nañu nag jàpp nañu lu toll ci ñetti téeméer doomu aadama ak juróom-ñeenti fukk ak benn noone ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn yi ñoo ne wax nañ dañu seetu nag seen wàllu cité xool ba xam fii la ñu dëkk wala diit waaye tamit toll si juróom benn fukki doomu aadama ak juróom ñeent wax nañu nag dañ leen jàpp ñu ànduñu woon ak seen sago maanaam dañoo mandi woon nee ni tamit wax wax nañu toll ci ñaar fukki doomu aadama ak juróom ñett dañu leen di téye ngir xool ab lanket bu ñuy def seen jëmm ngir xool noonu lañ la ñu doon def fukki doomu aadama ak ñoom dañ leen jàpp ñu ak sinebar noone ñu wax ni nag ñeneen ñi ay recel maanaam sàcc di jaayaat Euh, lañ leen euh, jàppee yeneen juróom-ñett yi ñoom wàllum vagabondage maanaam ci anam yoo xamante ne euh, boo leen gisee rek du ñu teggi ba noppi nag di andi léeg-léeg Euh, ay jafe-jafe ci askan wi euh, noonu nag euh, wax nañ ni li mel waa police nationale ñoo ko daal di amle ci liggéey ñu doon amal ci àllarba ji jàpp alxamis ji ñu génn ngir rek mën a aar askan wi ci wàllu liggéey noonu nag seen wàllu kaaraange tamit ci fànn yëpp ñu wax nag ci leneen directeur général bu administration pénitentiaire muy wax nag jamono ji fësal lépp lu jëm ci wàllu wér yaram njiital parti Pastef bi ñu tas muy usmaan Sonko moom mi ñu tabb yees muy Abdoulaye Diagne la mu xamle rek ci communiqué bi moom mooy di ne fukki fan ak juróom-ñaar jotee ci weeru août ci atum 2023 wax na ni daal nee ne nag jébbal Ousmane Sonko. Euh, ngir nag mu dem foofee ci réanimation ci hôpital principal euh, noonu nag ci communiqué bi euh, jàppale ni moom daal di nay wax ni jébbal na ko ay satatal sàll ngir rek mu daal di addu ci mbirum Ousmane Sonko ak wér-gu-yaramam bi nga xamante ne mu ngi koy gën a andil ay ay jafe ay jafe. noonu Abdoulaye Diagne nag colonel daal di fësal kàddu yi nag yi dugal ko ci réseaux sociaux yi moo waral ci beneen réaction sax daal dina ci am. ak euh, procureur de la république muy beneen xibaar ci wàllu yoon ak yoonal bu Sénégal euh, moom euh, colonel moom ngeen baal ma procureur Abdou Karim Diop daal di génne moom it ab communiqué wax ni lu jëm ci wàllu wér yaram Ousmane Sonko. Euh, ba jamono ji nag ñu gis ay document euh, médical euh, document médical yoo xamante ni daal nañ koy dugal ci réseaux sociaux yi ba tax na nag gis na ni ay mbir la ay xibaar la yoo xamante war ñu woon génn te dina ubbi ab l'enquête daal di jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo génne yi lay xibaar dugal ko ci réseaux sociaux yi ba noonu tamit ñuy interpeller ministre de la justice moom Aïssata Tall sàll bi ñuy tàbbu yees nee na nag ba tey mbir yooyee xamante ne jëm na ci wér-gu-yaramu Ousmane Sonko euh, rek dafa jëm ci euh, tàmbaliwaatu grève de la faim bi nga xamante ne mooy xiifal bu metti bi mu toll nag ci juróom-ñeenti fan jàppal ne ni moom moo daal di àndil boppam euh, li ni mel ba tey procureur mooy xamle wax nii li ñuy wax nii rek jamono ji li jëm ci xibaar yooyu rek faaw ñi ànd ji ab l'enquête ngir mën koo fësal xam ba xam euh, li fu wanante mu jëkki gëtam ndax gis na ni ay xibaar la yoo xam ne dañ ko génne daal di koy teg ci place publique rawatina nag ci réseaux sociaux yi nga xamante ni jamono ji tembe ñëpp dañu fay daje euh, ngir rek di fi waxtaan yenn mbir yi. mbokk yi jot na ñu daal leen dëgtal li nga xamante ni moo gën a fës ci site internet yi ak seeni article si bëccëgu tey bi ñu génn. dañu koy doore ak site bii di leeral point net ñoom nag ñëwaat nañu ak ñun ci noonu nga xamante ni ak fi doonoon directeur ARTP um, ñu koy woowee Abdou Ly Abdou Ly nag Abdou Ly uh, dëkk ca uh, maatam daal nay def uh, liggéey boo xamante ne jébbal na lu toll ci ñetti téeméeri kiit muy nag lu jëm si wàllu jàng ak jàngaleem ci daara suufe yi foofee ca diwaanu Matam jox ko nag lu toll ci ñeenti école foofee ca commune bu Bukki Jawe ca Matam moom Abdou Ly nag moo daal di joxe ay fournitures scolaires jébbal ko lu toll si ñeenti école waaye tamit mu doll si ñetti téeméer ci ay kit scolaire loole nag bokk na ci euh, liggéey yoo xamante ne nee na da koy def rek ngir dimbali euh, gone yi nga xamante ne ñu koy jublu si seen wàllu jàng ngir mën leen dimbali bu baax a baax ci diwaanu Matam rawatina si bukk jawee boobee nga xamante ne euh, foofu la féetee ñu daal di wax ci senenews point com nee nañ nag jamono ji am na ku daal di def liggéey bu am solo mu nekkoon nag ci dara yi kaw yi mu daal di am loolu ñu ñu duppee mention très honorable ak félicitation ci wàllu jury bi ab étudiante la si noonu nag dafa def eh, ab thèse eh, si noonu lu nga xamante ne moom la fa Serigne Touba Xadim Rasoul daal di eh, bàyyi eh, ci yoonu murit ak eh, l'islam wax na nañ nag moom soxna Meen Mbacke daal di nañ koy nag jox prix boobe ràññeeku bu baax a baax ci teesam bi mu doon amal jagleel ko Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul ci jàng bu am solo boobu nga xamante ne. mi ngi ko doon fësal ci lu fi Serigne Touba bàyyi noonu nag am na ci lu jéggi am na lu ci rafet ci njortam ginnaaw si bu mu amalee bile thèse moom soxna men Mbacke ñu daal di koy euh, tabal nag euh, bile grade jamono ji nag foofu nga xamante ni euh, foofu la doon jànge jég jëbbal nag thèse ak jàngam yëpp ci liggéeyul Cheikhul Khadim Euh, ci euh, l'islam ak rawatina ci yoonu murit dañ koy euh, tëjee rek yi lay xibaaru internet ak site bi di web wax nañu nag lu jëm ci wàllu mbëkk mi wax nañu nag lu toll ci ñetti junni ñaar junni ak juróomi téeméer ngeen baal ma ci ay nappkat ñoom lañu ñu njort ni ñoom ñooy yóbbu nag yenn ci ay ndaw di leen jëlee Sénégal di leen yóbbu foofee euh, ci Espagne muy ab réseau national des quais de pêche de pêche plutôt noonu lañ ko xamle ñoom nag jamono ji ñu ngi seeni tànk di xool ba xam ci yenn anam lañuy ñuy organiser ngir di yóbbu gone yi euh, ñuy jël gaal gi di dem foofee ca Barça wala ca Barsak euh, wala ca Barsak euh, ngeen baal ma noonu nekk waa seen yëpp ñëwaat bu baax a baax ci li ni mel ngir gën ko leeral waaye tamit ñu jëmbal leen ko ci xibaar yi gën a fës ci seen site internet yu Sénégal lii lañ leen àndiloon ñu jox leen dig daje rek ba ñetti waxtu ci yeneen xibaar yu soxal wàllu internet bi. kàddu yu gën a fës ci bëccëgu alxamis gi ñu génn bokk na ci nag eh, ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci wàllum jaayum ginaar ci eh, Sénégal noonu nag yëkkati nañ seen kàddu bu baax a baax jana ko teskotu xibaar yi daal di nag fësal eh, seenu mer ci ginaar yi nga xamante ne dañ koy génne war ko andi fii ci Sénégal muy mel ni loole andi na ay jafe-jafe ci seen wàllu liggéey bu ñu sukkandikoo ku yor seen kàddu nag euh, moo doon xamle li nu mel seen janook euh, taskatu xibaar ginnaaw si nag bu ñu jëlee ay kàddu itamit daal di koy euh, jokkar mi ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu jënd ak jaay fii ci senegal muy Abdou Karim Fofana dañuy teewlu rek yor seen kàddu Cheikh Pade moo ñu ko toppal. loolu moom ba léegi mi ñu loolu lu mu indi mooy lépp loo xam ni doon na dugg ci liggéey bi yokk na yokk bu jéggi dayoo bi ci jiite gën ci takku mooy aliment bi producteurs yi amul luñ ci dajul parce que yokk bi doonul woon benn yoon doonul woon ñaar yoon doonul woon ñetti yoon te li ci gënoon a metti mooy yokk yooyu yëpp dafa àndul ak yokku njëgu ganaar mu metti lool ci ñoom tuut yokk parce que ñi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu itam dafa am lu bari lu ñuy jéegaane ci liggéey bi mu yokk loolu ñu teg ci garab yi nga xam ni ñooy tax liggéey bi mën a dox loolu itam metti ci ñoom loolu ba tax ci diir boobu gis nañu ñu bari bari bari génn ci liggéey bi ndaxte loolu yëpp mayu leen woon ñu mën a continuer xam nga kon bu fekkee loolu am na nguur gi itam di ci dugal pexe di seet lu mu ci mën a def ba mu bañ a metti donte noonee ba tey ci kàddu yu gën a ci bëccëgu alxamis bi dañuy dellu foofee ca Touba ci dëkk bu sell bi ak noonee nga xamante ne moom mooy Serigne Bassirou euh, Abdoul Khadre Mbacké na dina yëkkati ay kàddu nag wax lu jëm ci yenn ci ay candidat ak noonee nga xamante ni euh, ñoom bëri nañ ci ñi nar ñëw Touba ngir rek dagaanu baatu askan wi am na lu mu leen jagleel ci ay kàddu ñu teewlu ko mu bàyyi ko ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké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 te ña ko yaakaar ngir sëñ Tuubaa te ña yaakaar ngir sëñ Tuubaa kum ko ci tere woon nga bàyyi ko kum tere woon nga bàyyi ko ndax moom nee na képp ko tàggu ndax moom képp ku ko tàggu ne ko damay politique yi ne ko damay politique yi nee amee sañ-sañ ci yow nee na bu amee sañ-sañ ci yow danaan la bàyyi ko danaan la bàyyi ko te def ko ñu bari te def na ko ñu bari nee na ña xam ne xam na ne seenub liggéey nag nee na xam ña nga xam ne nag xam na ne seenub liggéey da cee maandu da cee maandu moom ci boppam nag moom ci boppam nag tëlut loolu tëlut loolu moom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 ci noone Awa Marie Madeleine Diop seet nañu lu xew foofee ca diwaanu Mali sudan ak Liban ñu moom ci wàllu faram yi. leen nag jàmm ci seen xibaar bitim réew dañu koy dooree ca Mali ñu ñuy dippee ay casque bleu di doomi Tchad nag doon amal nag ab tukki nemmeeku di ab mission Nations Unies mbootaayu xeet bile a nga xamante ni dafay indi lépp lu jëm ci wàllu wàlloom ci yenn dëkk yu nekk ci Afrique foofe nag ci diwaanu ki daal nag ca bët gànnaaru dëkk ba jàpp saalum ba noone nag jàpp na ni ñooñu ñuy dippee ay casque bleu nag daal dinañ génn ca dëkk ba ci ni mu gën a gaawee loole yëpp nag mi ngi tënku ci njiitu Mali yi nga xamante ni ci jamono ji bëgguñu benn avion ni roppalaan jaar ci seen dëkk ba pour dem foofee ca càdd yëngu-yëngu ya am ca Kidal jamono ji nag moo waral ab kàng biñ dippe multidimensionnel bu mbootaayu xeet bi di Nations Unies jamono ji ba tey bàyyeeguñu nag foofee ca bët gànnaar jàpp bët saalum réew ma casque bleu yi nag di doomu waa Tchad nag jamono ji ñoom ñoo nga jotoon a génn ci bu gaaw rekk ginnaaw si nag ba dogal ba daanu ni bu benn roppalaan jaar ca Mali ci dëkk bu daal nag contingent bu doomu Tchad bi bokk ci MINUSMA mbootaayu xeet bi di euh, ONU foofe nag ñoo ngi daal di wax ni localité bii di Anglo-Coc nag ñoom dañ leen mujjee euh, wax ñu daal di jël yoonu suuf bi euh, ngir rek ñu mën a moytandiku ci lépp lu jëm ci ndogal boobu nga xamante ne mooy ne que bu benn roppalaan jaar foofe ca Mali di dem ca Niamey nga xamante ne mooy capitale bu Tchad problème bi ni mel nag moo nekk foofu ci diwaanu daal ndax nag bu ñu sukkandikoo ah, ci xibaar bu ñu fa mujjee root nag lépp nag lu fay ah, mbooloo wum takk der mënees na laa wàññi ah, ci contingent doomu Tchad yi la foofe nag nga xamante ni teewoon nañ fa ngir rek mën a aar lépp lu jëm ci installation ak MINUSMA bi daal di dem foofe ca Gao ca Soudan nag société civile ba ak politique ba ñoo ngay jéem lëkkaloo ngir mën a jàkkaarloo ak takk der ab réunion wu njiitu société politique ya ak yu parti civil soudanais ya niki àllarba ah, ñaar fukki fan ak juróom benn ci ngoon si weeru octobre ah, ginnaaw si ñett fanu weccoo xalaat bañ amaloon ca Addis Abeba ñu jeexal nag suñu xibaar yi bitim réew ca Liban waa réew ma ñoo ngay ah, xamle ni nag taxaw nañu temm ngir waajal ab guerre ak waa Israël ci tekk gannaaw yëngu-yëngu yi am ci diggante Israël ak Hamas mbir yaa ngay wéy bés bu nekk ca bët saalum bu waayeloo libanaise ba euh, ba tey ñuy xamle itam ne ni gi euh, li xew euh, ca Hamas ak Israël noo waa Hezbollah ak l'armée Israël ba bés bu nekk ñoo ngi jàmmarloo ci ay suux noone ne nag pàcc bu Hasana Nasrallah jot na ñàkk lu ëpp juróom fukki combattant affrontement ba nag moo ngay woy boobe ba tey lii leen indiloon tey nag ci seen xibaar bitim réew mu ngoog ñu ngi koy jaajëfal moom Awa Marie Madeleine Diop ci yaataale xibaaru bitim réew yi dañ ciy toftal rek lu soxol wàllu tàggat yaram benn ponk la mu jëm ci wàllu làmb fii ak bitim réew bu li weesoo Gris Bordeaux moom moo euh, jiite mbootaay bi nga xamante nag moo ëmb mbooleem kuy bëri ci Sénégal te nga nekk nag jamono ji ab mbër noonu nag àdduna ci mbirum CNG bi nga xamante ni ba mooyul dina teg ay daan kii di Ama balde ñu jàpp ne rek dafa teg yoon ñoom waa CNG ci jàkkaarloo bu mu ñëwul ci digganteem ak Modou Lo ba noonee nag li ñu ko laay sax am ci ab euh, bettange waaye tamit euh, mu mer ci lool moom Gris Bordeaux nag jàpp ni daan ni warul am euh, li ni mel bu ñu sukkandikoo ci Alexis Dacosta mi ñu ko faram fàcceel la gannaaw coow bi jib ci face à bi nga xam ne Ama Baldé teewu ko woon mu jëm ci combat max Modou Lo juróomi fan ci weeru novembre bi ju jëm te CNG fas yéene teg daan kii di mbëru pikin bi Gris Bordeaux jiite kuréelu mbëri àdduna ci xamle na ci page Facebook am lu jëm ci contrat sponsor amul dara lu ci CNG di dogal jéggi na ay sañ-sañam ñi ko sekk ñooy promoteur bi ax mbër yi ci ay kàddu yu leer te ñooñu le mën nañu déggoo ci ay mbir yu ëmp CNG gaa moom mooy dogal ci doxalinu làmb Gris Bordeaux di fàttali que ci contrat la ñuy tënk ñaata la ñuy amal ci face à face open press ak lu jëm tamit ci publicité te teg ko ci yoon kon coow su si amee tribunal dong moo mën a àtte ñi ko sekk mu daal di dolli di latte ñaata yoon la mbër nekk di daw ci ginnaaw promoteur ngir jot relikaawam ndax mos nañu gis seen CNG teg ay daan promoteur ci lu jëm ci ñàkk sàmm kàdduwam kaw loolu loolu Ibrahima John ñu koy woowee gribodo jàpp ne daan bu ñu bëgg a daan Ama Baldé ëpp na te teguwul ci dara g mënul indi àtte ci contrat boo xam ne bañ koy xaatim fekkewul te xamul lu mu und muy daal di ñaan ñu woote assise nationale ngir waxtaane tolof tolof yi promoteur yi ak mbër yi su jaree ñu jël ndogal jëm ci di boole g ca waxtaan ya ñuy waxtaan laata ñiy signe contra sponsor yi ñu daal di koy geneen wàll gi euh, moom ñu ngi wax wàllu MMA kii di rëg-rëg nag ginnaaw si bi nga xamante ne euh, mi ngi doon euh, jëmale boppam ci bëggoon janook ak Francis Ngannou jàppale nag doomu Caaroy bi Eh, di eh, champion jamono ji ci wàllu làmb Sénégal ak foofu ci eh, bitim réew bëgg na nag jamono jàpp beneen komba anoone ñuy wax ne nag ñaar fukki fan ak ñeent jotee ci weeru novembre bu ñu sukkandikoo ci app communique bi bàyyi ko ci waa wax ni nag jamono ji moom Omar Kane daal dinay dugg nag ci wàllu bosku box bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi lee anoone nañu jàpp ni rek doomu caaro bi dina àndiwaat leneen lu bees ci wàllu làmb jëmale ko ci euh, bitim euh, réew ñu jëyee xibaar yi nag ci wàllu people ak caada ñu nekk Baba Maal dina nag teewal ma euh, Sénégal ci ab festival wumat bu fukki fan ak juróom jotee jàpp fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars ci atum 2024 ñu nag ñuy ku ñuy duppee buuru yela dina fa teew ànd kook nag mbooleem ñi nga xamante ni yëngu ci wàllu musique muy caada ak cosaan foofee lañ koy koy amal ci euh, britanique euh, ci euh, foofu yi nga xamante ne ay woykat yu mag ñoom ñoo fooy daje ci ab programme wu caada ak wàllu musique mbokk yi bile xibaaru Baaba mal mooy buur yi la jotaay xibaar ci kàllaamay wolof xibaar dina ñëwaat bu ñetti waxtu jotee ci kàllaamay nasaraan ñu nar ko ànd ak wànd borom bi ak mala Balde di jaajëfal ñëpp jàppoon ci réalisation bi ba liggéey bi mën a yomb tàmbalee ko si ñoom Ismaïla Sagna si wàllu régi bi noonee tamit Pape Ousmane Diop ci son bi ak Mala Balde ba tey si réalisation bi technique ko Omar Diop jërë ngeen jëf ci teewli mbokk yi guddug jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp jërë ngeen jëf